waa imaam ba tey rek bëggoon nañu xam euh, kan mooy journaliste bu maandu. waaw journaliste bu maandu mooy journaliste boo xam ne la nga gis la nga dégg moom ngay nettali. waaye loo gisut déggoo ko soo ko waxee loolu ay sos la rek te yàq rek ko tax a jóg loolu yàlla nañu yàlla musal ci ñi nga xam ne loolu mooy seen taxawaay. waaw ndax réew mii jàmm fi nekk. fexe ba nit ñi jàmmoo moo gën nga fexe ba nit ñi di fenqoo ci wax wala ci jëf ñu ngi sant yàlla ñu ngi ñaan yàlla wattu suñu réew yàlla wattuñu ñun ñëpp boole ñu wattu ci lislaam wattuñu ci gëm yàlla allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam